waxtaan bi ñu si ànd ak Birahim Diadji euh, Touré ñu koy door ak nag euh, sa diwaanu Touba Birahim mu ngi koy wax sànq ab tout la fukki at sala euh, toll sa kër ñaa foofee ndoxum taw mi ma ne sañu wax ne moom sala lab ni ngeen koy gisee nii néewam la ñu teg ci charette bi nii fukki at sala toll sa kër ñaa la labee sa ndoxum taw ma loole nag nee nañu dañu jëkk ci gis néewam di tëmb sa ndox ma xale yi di foo ca pegg ba benn boroom sa sax moo ko fa mujjee jël génn ko teg ko ci charette bi di ngeen ko gisee nii di ko yóbbu mel ni ko ndoxum taw mi foofee sa diwaanu Touba mu ngay wéy di dafa dicté ay loi am élage ni ñu gisee image yi nii euh, déclenché nañu euh, plan Orsec waaye nag dafa mel ni plan boobee dama nu dara ci ndox mi sa Touba. Euh, et puis Birahim dafa posé question bi manque déglu sànq ma nekkee mhm. ci oto bi nee na plan Orsec national la wala ndax Dakar dong la loolu question la parce que du fii dong moo nekk victime ci inondation yi loolu benn la ñaareel bi ci des faw ñu delloo ko ci way juri tuuti aussi mhm. sens de responsabilité doom kenn du ko bàyyi muy taxawal ci ndox affaire bi am loo xam du nekk village villageois wala nga nekk ku dëkk ci taax yi sens de responsabilité la. Mhm. doom waroo ko bàyyi muy taxawalu ci mbedd encore une fois maam. doom waroo ko bàyyi muy taxawal ci mbedd soit nga yóbbu ko daara jox ko sëriñ mu koy contrôler nekkul ci daara nekkul ci sëriñ nga xool ko ci nan lay génne ci mbedd. ñetteel bi ci des nag day dellu ci wàllu yàlla xëy na accident bu amee parce que ñi yaroo ci village yi. gis nañu ne am na ay déeg yu mag yu doon am. Mhm. xale daana ci lapp ah daana ci lapp bu ñu musaan gubi jóge ci dëkk yi dem ci tool yi dem ci déeg yi gubi xale mun na cee lapp loolu yàgg nay am. Euh, ci déeg yoo xam ne yu mag lay nekk xam nga boo gisee inondation yu souvent may wax ni dafay jafe lijjanti ñi yaroo ci village yi nga xam ne ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw fi doon doon ay déeg yoo xam ne bu musaan taw yow ñi moo faa teg sa tànk da fay jaar tey ñu lotiseeku ba def ko ay kër. ndox du fàtte yoonam. léegi ñi fa ñi fa dëkk noonu. et noonu la mel fii ci dakaar